ah mbëggeel waaw sëy <laughs> kii. <laughs> loolu la lan moo ko jàpp père. Ah, ah, waaw waaw looloo ma téye. da ngaa dégg ax gi ah, moo yóbbu sama fit gi ba dama ne tekki da xool ne. Hmm? <laughs> du day da nga ne da nga yu fii sa sujet la tey. waaw mbëggeel. sama domaine la xam nga mbëggeel moo mel ni nga ne ndox xam nga mbëggeel dafa mel ni nga ne ndox rek baax na ina door incolore sans eh. mm-hmm. xam nga ndox doo xam ban guula lay jox mbëggeel doo xam guu bëggeel bu dëggu bi nag. Mhm. mbëggeel moom bu demee ba. nu mu mettee noonu la neexee. waaw mbëggeel dafay dafay donnaa donnaa la. na mhm. nekk kiif kiif rek na ku ne tee cinquante yi. Mhm. mu neex ngeen moo talante. waaye chaque fois bu amee ku ci xaw a balance bi bu xawee balancé wu ci côté kenn ku bu ëppee rek mooy waral coow yi di bëri ci mbëggeel mais mbëggeel bu ngeen yemee rek ci ay bëgg nga bëgg ma ma bëgg la mu nekk lu dëggu te dara lalu ko du intérêt du taar du dara. muy mbëggeel bu dëggu. pure dure mhm. day mel ni sow bu ay ab niw teg ci kawam rek mhm. ngay dànq muy neex ndax bi mooy ndax bi day neex <laughs> ay sentiment la ay jooy rek ay jooy rek la munta ñàkk xam nga xam nga mbëggeel balaa neex sax yaa ah. Ah, dama lay expliquer lu garaaw tey gis nga boo bëggee nit dëggantaan boo ko séenee nga tiimoon ndawal gi gën a duuf sa biir bi day fees hmm. dangay xiif ba pare reg da xiif ci saa si suur noo xiif rek boo gisee ki nga bëgganteel wala nga dégg bois <laughs> yaaw dañ doon xool mbëggeel ba ci xetu parfum wala xetu nit ki bu rombee nga ne fii romb na fi dëgg la looluy mbëggeel mhm. wala buy ñëw télépathie waaw lu ko dal nga yëg ko mhm. lu dal mu yëg ko looluy mbëggeel bu dëgg waa ndax loolu amatina ah waaw yaa ah, mbëggeel l'amour ni mu ko waxee am na am na ay ax ak ñoom yëpp da ciy xaj da ciy mhm, neex c'est ça l'amour l'amour au fait <laughs> monsieur Kandé moom dafa joob mi <laughs> ah monsieur Kane bu lay ree rek. pëtëxlu boo bëggee dëggantaan surtout mbëggeel yu bees yooyu neex la. da ngay ba yàgg nga freiné brusque ah, ni ah. nekk sa kanam nga avancé oh. waat. Oh. Oh. maanaam koy janneer. waaw da nga koy gis fu ne. di làmb di ko daj yàlla boo fanaan xalaat ko mais yéen ñaar mën naa leen a laaj dara. boo jékki saa yee xalaat ko <laughs> waaw baal ma ma daan leen boo jékki ah, <laughs> saa yee xalaat ko la ku ne mën na dugg ba taxlu leen ah, tout moment. sa fit bi dana tëf nga jékki say xalaat ko rek tiit hmm. I love you eh? ah loolu moom bokkul woon ci question bi. père demal si ah, nga bëggoon dugg avant may jox monsieur Kane. père ñëwal père bu la kenn traumatisé waxal li nga bëggoon wax. non dama leen tekk bàyyi leen bañ pare rek.